journaliste yi taskatu xibaar yi euh, maa ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay ak euh, seen patience aussi euh, di leen ne am na signé ñeenti convention de financement ak gouvernement Italie ci teewaayu vice-ministre affaires étrangères ak coopération bu Italie bi nga xamné ne ci visite officielle eh, ci ñetti fan ci ñetti fan yooyu nag dina dem visiter ay projet yo xamné Italie ñoko financer excellence président de la république Macky Sall euh, recevoir nako ci suba ñu ministre affaires étrangères ak sénégalais de l'extérieur tam recevoir nako tay ci suba ñu recevoir nako ko aussi bala ñuy fi euh, def signature ñenti accords yi accords yi nak ay accord de financement la yo xamné euh, ci anam yu yomb pour Sénégal ak aussi ak don don yo xamné euh, kenn ko remboursé ci total nak 15,5 millions d'euros mu tollu à peu près 10 milliards 100 euh, millions de francs CFA donc 10 milliards ak 10 millions ci sunu xaalis financement yoyu une ak don yoyu mu ngi dem ci projet euh, benn projet boo xam ne nag ci affaire agriculture la projet boobu sax amoon nañ première phase deuxième phase bii mooy nekk euh, troisième phase loolu nag don la boo xam ne à peu près 450 millions d'euros 450 pardon millions de francs CFA mu ngi nekk si ñeenti téeméer ak juróom fukki millions ci xaalisu Sénégal don la boo xam ne nag kenn du ko remboursé c'est pour mën a jox subvention jàppale euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci agriculture ci Kaolack ci Sédhiou ak Kolda beneen bi nag ci mbal ci wàllum école la projet mu ngi tudd faire l'école favoriser inclusion et réussite projet bi nag day gën a tax euh, ndaw ñi mun a gën a góorgóorlu seen jàng euh, ci école lépp nag c'est 3 millions d'euros Son ko xaymoo ci CFA presque 2 milliards de francs CFA la momtam c'est un don pour mon renforcer éducation qui Sénégal Mon tax xalé yi di jang gëna a bëri ñu mëna am euh, accès euh, ci ci jang ci Sénégal ci ay anam yo xamné nak euh, dina mëna a ak standard yi nga xamné nak nag ñoo gën standard yu am yu yu yu fort ci ci aduna bi standard internationaux euh mëna aussi troisième projet bi ñu signé aussi benen don le, pardon Bob mon prêt la près de 10 millions d'euros c'est un prêt très concessionnel qui est à anam vraiment à ci Sénégal pour nous appeler jàppale le long des Niayes projet Bogotam, signé non dernier bi mon projet bien nga euh, pour le ministère de la femme qui est géré, et c'est surtout pour nous ministère de la femme le ministère de l'égalité du genre pour mun def tout ba discrimination bañ am diggante jigen ak góor discrimination nak ci wal ci fàll bu ne ci wàllum njàng ci wàllum liguey ci wàllum am accès hamna financement ci wàllum am accès euh, terre am accès lu donc secrétaire général ministère de la femme mu fi teewal aussi euh, seen ministre euh, ministre aussi Moussa Balde, agriculture et équipement rural aussi amna fi représentant loolu dal mo nekkoon li waral ñu ñu am signature yi tey suñu coopération ak Italie nag lu am coopération bu am solo la que bi ma recevoir ministre bi audience nee naa aussi que ñu gën euh, en fait renforcer ay liens d'investissement ak commerce que une entreprise mun a au Sénégal wante une entreprise qui a di exporter Italie surtout entreprise qui nga xam ñoo nekk ci agriculture surtout horticulture parce que Sénégal day exporter ay dëkk yoo xam ne Angleterre ay Hollande donc war na mën a aussi exporter euh, Italie war na mën am aussi ay entreprise italienne. yu war a ñëw liggéey ci Sénégal produire pour Sénégal mais surtout produire pour euh, di exporter ci sous-région bi parce que ñu ngi nekk ci union euh, économique CEDEAO wante ça, exporter au-delà de l'Afrique parce que Sénégal a na ay conditions yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne na trop am nañ stabilité am nañ euh, euh, paix am nañ avantage yu bëri donc entreprise italienne mu ngi leen di encourager ñu ñëw produire fii ci Sénégal di exporter du rek nekk Italie di indi ay marchandises loolu am na solo aussi mais surtout produire fii ci Sénégal euh, di ko jaayee nag fu ne ci àdduna bi parce que loolu mooy indi croissance économique loolu mooy créer ay emploi ministre bi nag aussi vraiment nee na loolu lu am solo la dinañ ci gën a jàpp bu baax beneen bi nag li ñu discuter aussi moy gëna renforcer projet yi ñu gëna def ay projet yu xaw a ñu baña def ay secteur yu bari mais ñu tànn benn wala ñaari secteur rek def ci ay ressources yu bari ndax mëna régler problème secteur bobu une bonne fois pour toutes ñu né nak coopération italienne moko ko def waxtaan nañ ci ci walum formation professionnelle par exemple ñu ngi construire ay centre de formation professionnelle ci Sénégal Italie war nañu ci mëna jappalé parce que ñom lolu amna xarañ nañ ci trop euh, benen bi nak euh, benen fànn bi nak moy lepp li nga moy liguey secteur privé c'est-à-dire utiliser ces financements ay financement pour attirer le attirer secteur privé parce que c'est aussi mon objectif gouvernement ci deuxième phase plan Sénégal émergent ñu yokk investissement privé te lool tam Italie mëna nous si jàppale donc ñu ngi un ministre bi ci vraiment voyage bu fi def bi di leen gëreum aussi ci sen téway jërë jëf merci merci beaucoup